sallallahu ala muhammad sallallahu ala nuru muhammad mbokk yi Kun Fayakoun TV ñu ngi leen di seere bu baax di leen baal xaq te di leen ko baalu Kun Fayakoun TV buñ ko waxee muy seen bi nga xam ne ne xam-xam moom moo ko tax a jóg ak njariñ yow mi nga xam ne yow yaay seen kanaan bi ñu ngi lay invité nga abonné nga xam ne chaque vidéo buñ def nga mën ko am si sensé ndax lépp dañ fiy jàngale ni ngay def ba mën a am xam-xam bi wala lii nga bëgg ni ngay def ba man koo am nga xam ne ne seen bi loolu moom moo ko tax a jóg muy xam-xam yoo xam ne ni képp ki nga xam ne def nga ko nii ñu ko waxee sunu borom dana yombal lépp loo xam ne ni yaa ngi ci sóobu wala yi lépp loo xam ne yaa ngi ciy dugg danga koy am tey nag ñu nekk ci waajtaayu màggal bu nu waxee nag waajtaayu màggal muy ñi nga xam ne ne dañuy jaay nekk tuubaa wala ñiy yóbbu marchandise suubaa wala ñi nga xam ne ne bëgg nañ yàlla di leen xéewale nga xam ne ne lépp loo xam ne ne ñi koy koy lijjanti si semaine bii nga xam ne ne dana mën a màggali ñu yóbbaale ko ndax màggal bu ñu waxee màggal bis bi dafay bari yow mi dëkk Touba xam nga ne chaque màggal xéewal yi dafa war a bari lool nga xam da mën a màggal berne def lépp ndax li ngay jënd si fur yi rek dafay bari tey nag dana joxe secret yoo xam ne ne képp ku ko def yàlla dana la wërsëgale xéewalee la balaa màggal gi nga xam ne ne euh, lii nag secret boo xamee ne cinq jours trois jours nga koy def yàlla ñëw muy secret boo xam ne dafay yéeme lool doy waar lool nga xam ne ne képp koo xam ne def nga ko sunu borom dañ la suturaan moom say mbir gën a ubbeeku ndax lii lépp loo xam ne dañ ko fiy joxe bëgg na ñëpp man see jariñu ndax fii fii rek moom lañ ko fiy joxe nga xam ne mooy Kun Fayakoun TV bëgg ñëpp man see jariñu secret bi njëkk nga xam ne ne bëgg nga yàlla ubbi la xéewale la muy baatu xurañ sin kooku moom maa ngi ko jox ñépp ki nga xam ne ne dafa soxla xaalis nii jooni jooni jooni bu bëgg lim bii bu ko defee sikkar ko toog sikkar ko yàlla ubbil ko xaalis boobu mu soxla baatu xurey sin xurey sin xurey sin xurey sin xurey moom lay bind lim bii ma lay wax moom lu koy bind xurey sin xurey sin xurey sin xurey sin xurey la koy bind 3000 yomb na ndax benn baat la rek nga bind ko ñetti junni yoon muy 3000 boo paree nag nga def ko saafara boo amee si ndoxu taw bi nag moo gën nga boole ko moom nga wut nag sungufu xaalis boo demee si ñiy uude ñiy dëgg yi dañ la koy jaay 2000 mille francs ñu jaay la si nga def ko si nga wut parfum boo xamee ne dunya yàlla ak kaafoor bu la neexee nga def ko si nga koy diwoo wala nga koy raayoo tiiru juróom-ñaari fan di sikkar sa la ila fi xuraysin saar bi maa ngi laasewaat ne képp koo xam ne ne sikkar nga ko te loolu ñëwut képp koo xam ne ne sikkar nga ko ñetti fan wala juróomi fan te lim bi ngi si soxla si xaalis som boobu ñëwut woo ma téléphone dama dama dévier yépp lim bii ma la wax moom nga koy bind sikkar ko si lim bii nga koy sikkar nag muy trois cent quinze li ila fi xuraysin ngay sikkar Euh, trois cent quinze bu ñu waxee nag trois cent quinze xam nañ ko trois cent quinze lim boobu du mu yéema ndax lim bu yéeme la nga xam boo ko si si li ila fa xuraysin laal tey gis tey kon bokk taalibe yi yéen ñi nga xam ne ni yéen safoo Kun Fayakoun TV tey secret boobu la leen indi loon pour ñëpp mën see jariñu ñu ngi leen di ñaanal nag jàmm ak tawféex si barke yeneen di leen wax seen seen baa ngi noonu ngeen abonné te bés kuréel bi nga xam vidéo bu nu mën a def rek yéen deen koy mën a am si changé seen mbokk Cheikh Ibra sallallahu ala muhammad sallallahu ala nuru muhammad